Chez Cheikh Ahmed Tidiane Baw, euh, donc le secrétaire général du collectif des impactés de Tivaouane Peulh. ñoo dajaloo woon suñu booloo suñ suñu mbooloo jël suñuy xaalis dajale ko ba 2009 ñu am site sit bi nga gis fii tey nekkatul site waaye léegi ab site la parce que dëkk nañ fi à 80 pour cent terrain boo fi gis muy nuy xëy na kooku dafa amul moyen pour tabax ko mu des fi ñu dëkk fi nag depuis 2013 ni ngeen ko gisee am na terminus bis courant bi ñëw na ñëpp dëkk nañ mais ni ko olof di waxee rek lu sotti am borom ñun toog nañ ba 2020 donc 2010 ba 2020 am ku ñuy woowee Ousso Dia El Hadj ñu koy woowee Ousso mu ñëw fi ak ay doomam ay jarbaatam ay rakkam ak ay nervium ñëw di ñëw ci dugg terrain fu ñu fi gis ab terrain nu ñu jël ko jaay ko lii moom mooy li nga xamante ne am na ba mu amee nag ñun enseignant comme ñoo xamante ne ay jàngalekat lañ ay soldats du savoir dañ ne du ñu jël ay ngànnaay di xeex ak ñoom waaye li ñuy def mooy lan dañuy dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité ñu alerté leen ci loolu dem nañ gis commandant brigade bu Tivaouane Peulh ba dem nañ tamit l'ancien commandant bi nekkoon tamit ñàgg alerte jox nañ ko lettre d'information dem nañ ci préfecture sous préfecture fépp la ñuy dem kon tey problème bi amul benn autorité bu mën a taxaw ne yëguma ko ñëpp ko yëg xëy na nag ñun li jaaxal mooy càll bi li tax tamit waxuñu si bi ñu demee def loolu lépp teewul usoo mu ngi fiy ñëwaat ak ay njabootam di jël ay terrain jàmbur ay chaque fois ñu fiy gis ay xeex di fi am xeex yi nag bi mu demee ba commencé am ah ñu ne dañ ne dañuy taxaw mënuñu toog di seetaan ay nit ñu jël suñuy alal loo xamante dañ ko liggéey ñii jël def ay prêt bancaire ñii ñëw tamit jël seen prêt DMC jël ko dugal ko fii ah bokk ay nat ay yenn jigéen bokk ay nat dajale ko tey ba mu bari ñëw teg fi nit ñoo bëgg a këf seen alal ci benn bés te loo xam ne teg ko ci yoon teg ko ci dëgg gars yi nag taxaw nañ ne comme autorité yi waxuñu dara dañuy jàmmaarloog ñoom ci jàmmaarloo am saa bi nga xamante ne mu mujj mi ngi amoon septembre bee passé ba ñu arrêté ci woon fii lu mat ñeent enseignant ci suñuy mbokk fekk école di waaj ubbi ñu tëjoon leen ba déggoon geen coow loolu ba loolu amee nag bañ génn leen dal amoon na waaye fan yi li ñu nemmeeku mooy Mama ma moom daf fii ñëwaat ànd ak ay gros bras ak Ndiaga Sow di jarbaar ci Ousso ànd ak ay trois gros bras di ñëw di def ay numéro ci ay terrain jàmbur ak tamit ci ay kër jàmbur ak ay fondation jàmbur ngir nan mu jaayat ko ndax gis nañ fi ay clients yu ñu xam ne lii nag wax dëgg yàlla cokkaas la boo xamante ne nii du ñu ko bàyyi mu sedd li fi amoon dañ fi xaañ nit mu tëdd ñu ne coup et blessure volontaire porté fi ay bëgguñu nag bipa pas mort am fi te xam nañ ne comme ñi ngi ci nguur goo xamante ne jub jubal ak jubanti moo ko tax a ñëw kon ñi ngi woo monsieur le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye lii mu jug ci gis nañ jéego yi nga xamante ne defoon na ko ca mbuurkaat loolu lañ bëgg tamit Tivaouane Peulh ñu réglé ko benn nit moo fi nekk am 15 hectares bañ ko mayee 2012 fu neex mu tàllal ko fa jaay fu neex mu tàllal jaay waa terrain xanaa du jaay jeex jël terrain bëgg ko def toolu mango at bu nekk ngay tamit di jaay yóbbu nañ ko ci yoon ñun dem nañ ci yoon porté nañ ay plainte lu mat juróom-ñetti fukk plant mi ngi descos bu bu descos bu tëngëj mais ba tey amul benn bu ci am tamit saafara kon nag ñu ngi ci ñaan autorité ngir yàlla jug dañuy sant nag di gërëm ki nga xamante ne mooy commandant bu bees gis nañ mi ngi def ay jéego yoo xamante ni dal na xel ñun ñaanuñu ku ñu at ku ñu faral waxuñu ko ñu faral mais dëgg lañ bëgg loolu nag la ñuy xaar ci autorités tey ñu ne woon dañuy woote groupe bu restreint parce que ñëpp ñëwuñu ngir ñu jébbal leen suñuy doléance ñu jéem a saafara lii